sama sëriñ Balla Kumba Njur maam Jaara war ka Mbodj Mamadou Mahfous sama ñaanal Mamadou Mahfous doomam ma ma ñaanal Mamadou Mahfous soxna May Mbàkke yaayam soxna May Mbàkke maam borom Tubaay baayam Mamadou Mahfous bété jaay Mbàkke Abdoulaye Mbàkke ni jaayam cey waaw gis nga booy bëre yow ñi ngay àndal dañuy taaru tabe dañuy rafet kaar dañuy taaru tabe tey ma joy dara ko ndey seen mbaadaam ju mag ñi mi ngi réere borom sol xapali ngone ngi di xaw diri mi ndela nga njaay mbakka sama ma nga dana la mbay bismillah ba bi jati bat bismillah wut rahmani am am amani am yaay am ni suddi amee am indi foog foog xaj bu bare nga am ci bu barewul yaayam ñëpp toog zarko Bamba bilaay su ma ba yegg ci lool mam góor gi njaay baa ngi lam ñu dootu am ci min réew sa forom bari bay rek saa yoo waxee ñëpp lii dafa jafe ma su lay jiitu xoolal ndaare yi lay juróom ñaari ndaare ku ñu jindoo soow ko niroowul ak ñun da xoolal sabar ñi lay jin ndey Seynabu kaay waay Bamba léegi nag nañ commencé mu mën a jàkkaarloog presse bi ndax guddi na Zarko day doomi Grand Yoff ñu doon ay doomu Grand Yoff kon mën nañoo ñàkk laal loolu Massamba Ndiaye bàyyi Nene Ndiaye bàyyi Mama Ndiaye tooro de Samba Ngaari Jama yandaar ko am jéeg nga may defal ayca Samba su mu doon la parole waa ni tëgg ñu may nay Seynabou adjoint maire ma jóg jóg kon yow su la gisee foo ñu waxo yow si fula xam ne yow li ñu tëgg yaa ko moom sigil ma sa jàgg ma jàgg may sa joor xale baa bu xale la xale la assuré a mel ñu ko bëgg ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ñu ko bëgg yaay la war a mel la war a mel jàpp leen fii la soxla doom dayam doom dayam doom dayam yaay ju koy nampal da yow sargo bakk na la jënal ay ay ay sargo o yëngal waay mam xam Yeah, I'm eh langal Mangor yow balaa dara yaay mbokkum yaay bàyyi pël. Zarko nee na balaa ngaa dem nga ñëw teral Samba Sow. Mangor ne ko yoroon cinq millions di ma ko dig. Mangor ay dëgg du neex dëgg du neex. wiyee ko ay zoma fii de saa. Mamor ay zone fuu de saa ñu dem nga jegin tes peut-être peut-être son kaay raas oh my god wuy wuy wuy kaay doxal kaay raas ku yëngal ku yëngal ezal ko do mi Grand Yoff talibé Bamba ngi zone fuu de saa ana am doomu ndey zar ko ju ko yëngu si zone fuu de saa ndeysaan koo jugo yëngu ci lii jéem a fi ba saa rafetal ana ngeen ndeysaan koo jugo yëngu ci lii ke ki jas ca la la la ki jas la jegi ngeen ci yéen foofu. waaw gars yi dañu déglu woon ndax tamit daa dugg wax day changé gars yi mu ne lu ñëw. bu ngeen amee question ngeen wax. c'est bon léegi. yéen yéen de laa léegi. foofu yëpp baax na. jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax. tey nag ñu seet si Zarko mu def open press wala boog euh, bëgg a waxtaan ak ñi nga xamante ne nii euh, ñooy ay mbokkam ay fansam ay am di jàmmam ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan bi. Zarko nuyu nañu. waaw ñu ngi leen di fay di euh, kontaan bu baax a baax di rafetlu teewaay bi ñi ñëw ñëpp ñu ngi leen di masawu di leen ne kontaan nañu bu baax a baax ñi ñëwul aussi xam nañ ñi jot moo amul. li ëpp solo allo allo li ëpp solo mooy yéene bi. ku ci nekk ci ñun xam nañ li mu yéene Zarko mooy ñu dem yàlla defal ñu ndam le 27 incha allah di leen wax ni ñun nag euh, wax dëgg yàlla pare nañu pour euh, pour le 27 incha allah pour euh, libérer askanu Grand F askanu zone 7B de Grand F te incha rabbi bu fekkente ni liggéey rek moo koy maye di yóbbante suma adversaire rek di ko ne ku ci gën liggéey man ak yow yàlla na ko sunu borom defal ndam di la wax ni am na combat te di nga xam ni ki ngay bëreel euh, pare na sur tous les plans et ñi nga xaar euh, le 27 incha allah ba arbitre soufflé di nga xam ne ñun waa Grand dañuy ñëw pour jël suñu victoire indi ko féete ko biir Grand Yoff te mbay mbay Killing ak Kalag ñoo bokkul sonori mais bokkuñ ni leen di bindee mbay nee naa la ba taay doomu gaynde du jur muus mbay nee naa la ba taay pour nii wala baaxal saa su ma jàppee na say mbokk daw dinaa la dóor dóor ba say xamante ni ko wax ma sàmba duma ko wax ma demba du ma ko wax sax sama yaay duma ko wax sax samay doom du ma ko wax sax samay xarit egg na ma foo xamante ni sama bakkan bii nii bii moom laa lay teg ci bu fekkente ni l'ensemble balaa ngaa balaa ngaa remercier dañ ciy ñëw ñu gis ne tey sa open press Mbaye Gouy Gui jàpp open press am tey lan moo waral loolu sa combat hmm? ñu gis ni open press non man wax dëgg yàlla man op di jóge woon sax pour def dara man dama bëggoon bàyyi ba làmb ji jeex ba yàlla defal ñu ndam ba pare parce que man fi mu nekk nii du ay wax du ay woote riir du ay woote mbooloo. laay moo ma dese am man xam naa ni zone 7B da nga raay man Zarko aw ma fi noonu aw ma fi ennemi ñëpp samay gaay la ñëpp samay frère la yaa ngi dégg muy njaama bi muy tukulóor bi muy séeréer bi muy bambara bi ñun doomu da nga toog diir bu yàgg ñëwoon ci làmb ñu ci bàyyi na coow li bàyyi na sa diggante ak mbay guy gi mais est Zarko dina du perte repère ci Zarko c'est un gladiateur du mos a perte repère ci dara. boo bu doon bu doon tay tay tay tay tay làmb bu doon tay tay wala suba suba. bay bi ak ay mbokk yëpp incha allah dañuy for yi. parce que ñun dañuy yóbbu drapeau Grand Yoff di yàq kii Zarko bi nga xamante ni moom la am fu mu baaxul. loolu la ko eh, demee dafa signé ba pare te liirul loolu la ko demee. yaakaar nga mën ngaa teg mbay guy lu métti. non mais yow xanaa da ngeen fàtte man bi may ñëw mbay guy indiwuma de. Ah, Sénégal dañuy fàtte. man contrat bàyyi ma ñëw man sama dama dama ñëw dama ah, décidé woon ñëw pour Grand Yoff may leen ma rek sama gars yi pour Grand parce que dañu toog Europe dégg ci biir làmb ji. ñu dégg gox yëpp Pikine di dégg Géejawaay di dégg caaro yi seen ay doom seen ay euh, seen ay mbër di jël li nga xamante ne alal bi ne ci làmb ji mu metti ñu ñu xam ne boo doomu Grand Yoff aussi war nañ ci mun a am. li ñu ci déggul turu moo li ma ci déggul turu Grand Yoff déggu ma ci fenn fenn foo xam ñu ngi koy coow ci Grand Yoff au niveau mondial laay waxee nag. waxuma au niveau international. comprendre nga foofu laay waxee te foofu noonu fa la ñuy yóbbu turu Grand Yoff allah. te bu neexee yàlla li ñuy wax mooy. incha allah li ci bàyyi nag sa digganteeg mbay guy bi coow li dafa xas-xas loolu bari. yéen ñaar règlement de compte dafa am seen diggante. du règlement de compte barki Serigne Bamba xam nga wax déggoo ma nee la kiliñ ak karak ñoo bokk sëgëri mais bokk ni lemi bindee. école moo nu boole mais bokk nu classe. barki Serigne Bamba du làmb man moom. te loolu nekkul loo xamante dañ koy wax kacaw kacaw déedéet dañ koy continuer. kon nag guy ragal bi bon la ma ci ko tuur. ba mu arrêté si léegi dafa am loolu. nee na bés ba bu ko neexee sax du andi daal na andi ngeen ba ba jàpp ngeen jàppante yéen ñaar. loolu loolu wax dëgg yàlla moom la concerné ñun li nga xamante ni pare nañ ko ah, xam nañ si yaram te xam na ñaar at lañu xam nañ man boog dama per dama part personnel man en âme et conscience je sais que je suis un professionnel xaaruma mbay guy gi ci dara xaaruma keneen ci lenn. di wax lu aussi tamit di ngi wax waa Grand Yoff yëpp l' ensemble zone 7 njaago yi séeréer yi bambara yi saraxule yi joolaa yi soose yi matinke yi baylunke yi rawatina nag sama mbokk Haalpulaar yi parce que Grand Yoff Grand Yoff Grand Yoff boo ba seet Grand Yoff boo seetee ba seet c' est en miniature xeet boo xalaat mi ngi biir Grand di leen wax ni nag seen doom seen rakk moo xewle yéen ñëpp ñu leen wax ngeen ñëw jàpp ci le 27 incha allah yàlla defal ñu ndam sedd guy. ñu ñëw fii nii feete ko fi. mais est ce que bi mën kii par force day xeex. par mu neex ko mu naqari ko. sama waa ji jëluma pour ñëw ñu bëri ay mbapat de bu fekkente ni mbapat nga entraîné. Ah, bu yeboo si trois jours yi. dinaa la dóor ba nga dawal sa bopp lu leer laa la wax. fekkente ni say mbokk dañ ne la Zarko day ñëw bëre ak kese ñu ngi lay nax di nga xeex xeex xeex ba lépp teppeeku ñu soog a lu toog man ak yow. mais ñu ci bëri nag nee nañu Zarko bi ñu gisoon na guy gi est-ce que mën nañoo gisaat Zarko bu mel noonu. Eh, li ma bëgg ñu xam rek li ma bëgg ñu xam rek man grand laa dégg grand laa juddoo grand laa yaay grand yow fii mosuma juddu sax ba gis grand waxuma la fi de juddoo fi mosuma ko gis ci àdduna booy bu ñu ngemboon fii bu demee tamit da koy joobal da koy joobal day dégg li ñuy wax rek li ñuy wax rek mooy di wax képp ki nga xamante ni képp ki nga xamante ni yaay bëggee Zarko muy supporteru Zarko yi ñi nga xamante ni dañ may bëgg ak foo mënti nekk si àddina foo mënti nekk si àddina woowuñu kenn kenn kenn ci violence am ko am nday Mbacke nee na bu ma li may wax nii rek parce que lii nii c'est très important parce que c'est message boo xamante ni waa Grand Yoff dama bëgg ñu xam ne ñun ay noble lañu Grand yéen ñëpp na ngeen xam ni ñun waa Grand Yoff bokkuñu ci banlieue bokkuñu ci banlieue li laay war a suuli nañu comporté woo comme ay gentleman dem ci suur làmb ji sañ seelu ah. rafet dem jëli ndam bi indi ko fi incha allah ah. ci loolu laay woo ñëpp comprendre nga di wax ni nag am na loo xamante ni mi ngi am ci làmb ji bugguma ñu gis ci Grand Yoff te xam naa ni duñ ko ci gis parce que man gisuñ ma ci ah. lépp li nga xamante ne mi doon am ci làmb loolu ci làmb la woon rek après jeex na bu jeexee jeex na. Eh, Zarko ñu ngi lay nuyu. Ah. ci loolu na tey Liss Ndiago jël na est-ce que moom pare na loolu wax supporter bi. waaw parce que man euh, loolu seetaan naa ko les supporters Liss Ndiago yi loolu waa jàmm gën lañ waa banlieue ñun duñu banlieue nag ay nan la comprendre nga di leen wax. wax nag eh, ñi ngi loolu rafetlu wuñu ko stade bi stade bi de ministre bi daf ko def pour les lutteurs comprendre nga sama gars yi ñu daan sa mbër jàppal sa mbër nga yóbbu ko mu dem entraîné ji liggéey préparé waat nga daan nga dem feete ji sa koñ stade bi buñ koy yàqee suñu bopp lañ koy yàqal yàqaluñu ko ma Samba yàqaluñu ko ma Demba mm. mi ngi nii tey li dal Luis Ndiago yéene wuñu ko ko parce que xale bu ndaw la nekk ci yoon ñu dagg xaalisam ak waxaw ko trois ans euh, un an souci xam nga loolu noonu euh, ak léegi moom fan la jëm loolu ay supporters ñoom ñoo ko yóbbee man nag yàlla dimbali na mu ba aw ma supporters yu mel noonu comprendre nga samay supporters mosu ah, ay noobu ah, lañu ñu jiital ko ñaanal ko ak xol yu sedd buy yóbbu ko ba stade mu indil leen ndam nit parce que nekkul yéen sasu leen ma lu diis man bu ngeen ma sasoon lu diis benn jour ma war a xeex ak cinq wala six personnes d' accord mais benn nit mbay guy gi. waaw mais mbay mënuñoo tere fayeeku. mënul ne c' est impossible. mais mbay guy gi dégg naa ko ci waxam. nee na du fi ñëwoon sax di xeexante yow nga koy yàq nga am foo koy teg da lay la. bi ma dalee bëri ba léegi douze ans presque. mosoo gis góor bu ma dirigé. te moom c'est les cadets de mes soucis may bi moom après lay comprendre moom xam nga kañ lay comprendre. le vingt huit bu yeewoo si lay comprendre incha allah. parce que man dama pare euh, xam naa lan lan moo may xaar xam naa li nga xamante ni moom la waa Grand Yoff di xaar moo tax boo gisee tey open press bi nu mu demee nii xaaruma kenn ci lenn li billaahi wallaahi wa mbay guy gi bu neexee yàlla ah bu ci yàlla àndee dama koy jàpp daan ko allah ñibbi si ci biir Grand Yoff nee na ndox du jéggi pap sànq ba léegi moo lay dégg yaa ngi wax moom andiwu la. moom du baax baax moom dafa bokk sama yoon sama jaar-jaar la. mënul eh, mënu ma mënu ko bañ a jaar mënu ma bañ jaar ci moom. confirme yoonu confirmation te dañuy confirmer incha allah jàll dem jëli baay ma ñëw jëli leneen leneen li ma moom ci laa ko loolu ko yàqal. moom du baax di wax ni euh, ñi ngi wax waa l' ensemble zone 7B wax ñi nga xamante ni les autorités ñi nga xamante ni ñi ngi biir Grand Yoff ku ci mel ni Khalifa Sall Khalifa Ababacar Sall ñu ngi koy woo ci journée bi di woo monsieur Modjo ci journée bi di woo Bas son son secrétaire di woo Ndeye Seynabou di euh, baax a baax di woo madame la maire aussi di woo Boubacar Camara euh, di woo euh, Boubacar Camara di woo Adama Faye di woo Adama Faye ci combat di woo Mora Cissé Moral Cissé ñu ngi koy woo ci combat bi di ko xaar moom suñu mbokk la donc li nga bokk bul xaar ñu la ciy woo di woo saane Sané euh, Moussa Sané député Grand Yoff ñu ngi koy woo ci combat bi di woo Père Laye Ndiaye ñu ngi koy woo ci combat bi di woo Saliou Saliou Import ñu ngi koy woo ci combat bi di woo Ibrahima Ibrahima Faye ñu ngi koy woo ci komba bi di woo aussi Père Abdou Père Abdou chef de quartier Père Abda chef de quartier ñu ngi koy woo di woo maître Babacar Seye di ko woo ci combat bi di woo Ware euh, Ware Fall euh, Ware Fall pharmacie di woo Cheikh baaxum di woo Cheikh Bakhoum bu baax ci komba bi euh, te di woo aussi sama gain sama xarit sama genn wàll Aline Badara Kéré ñu ngi koy woo di ko xaar bu baax a baax di woo di ko xa eh, xam ko moom mooy président bi ci moom la ñuy jiitoo lépp di wax aussi tamit eh, eh, sama copain bi ma solal muy Dakar Dakar Sport Dakar Sport Nutrine di leen woo aussi si combat bi di woo njaago yi waa Passeral waa Këllëkis di woo ñëpp di woo waa Pinjolo di woo sama mbokku séeréer yi sama mbokku séeréer yi sama mbokku njaago yi surtout ci wàllu mobilisation. sama waa ji dama ni la gars yi dinañ gis ku doy waar waa Grand Yoff bu ñu dugg see naa Medina dañuy génn xajal ñu ba toog ba pare. loolu par force la. nee na moom foofu pied pied de bu ma ñëwee man Zarko bu ma ñëwee ak waa Grand Yoff barki Serigne Saliou waa Medina dañuy jóg xajal ñu ñu toog dañ nuy xaar. ñu dañ nuy dañuy yokk jëli ko dañ xaar. par force. nee na daal en tout cas midi moom boo yéexee midi lay tëj sax. ma ne man bu ma ñëwoon 17h30 sax. dañuy dugg dañuy jóg dañuy jóg ñun ñu toog. xanaa déggoo 17h30 bu ma ko génnoon fii dem egg 19h dañuy jóg ñun ñu toog ba pare. noo xoolee woon tam people saa ari mi maani saa ari mi arat saa araani mi arat saa jagi oh! mi jagat saa jagaani mi jagat eh bay mi si mi jagi boy si mi jagi wondiri kamil yo sehilmaɓe fof nawma a heɓata haydara boy onon bandiraɓe haalpulaar en ñagademen allah dokku men victoire mbelɗo ah, e dow makko ɗi wax aussi ɗi wax aussi fi may tëjee rek fi may tëjee rek mooy sama sama mbokk nga xamante ni booba léegi ah booba ñi nga xamante ni booba léegi ñi ngi dàq si ko ñi ngi jàpp ci combat bi di remercier aussi sama benn grand Félix grand Félix euh, Gomis borom tànn ñu ngi koy bu baax di remercier aussi euh, ñoom Assane di remercier ñoom Abdou Kane Abdou ñu ngi koy sant bu baax a baax ñoom Baye Guilé ak Matar ñi nga xamante ni ñoo gën a sonn ci journée bi ñoom Khadim kole ñoom Mbaye mbay aussi mbay di gërëm aussi tamit ñoom Gandi Gaal sama gars yëpp ñoom Ahmed Seck ñoom Ibou Gueye ñoom Aldo di surtout Pape aussi Pape bi jógee ba parcelle rawat di di gërëm aussi Pape bi nga xamante ni moo jógee ba parcelle ñëw fii